am na benn ASP boo xamante ne nii dañu woon moom sandarma la di war nit ñi ca diwaanu Fatick nag ku takkut masque mu lijjanti ko ak yow ba nga jox ko xaalis fi mu ne nii nag euh, moom moomu mi ngi ci loxo ba jàpp nañ ko mi ngi ci garde yi ñu war cee ubbi enquête xam loolu mu doon wax lan moo ko waral fekk booba nag euh, njiitam di directeur général ASP yi di leen dalal seen xel ñoom ñooñu. nee na nag euh, am na lu war a toll ci fukki junniy ASP yoo xam ni nag ji euh, promotion mille 2008 2018 yi